fidèles téléspectateurs de la chaîne Rewmi TV waat nañ ci seen émission Rewmi People comme toutes les semaines ñu am une star du showbiz sénégalais waxtaan ak moom tey nag ñu ngi fii ci euh, Mamelles seet si Dip Doundou gis le grand rappeur tey moom la ñu am privilège nar waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy carrière musicale am ak sa vie artistique Dip salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu di nuyu waa réew mi di nuyu ñëpp ñuy seetaan. lu bees a bees a bees a ah yéen a bees yéen waa réew mi. Mhm. yéen yéen a bees. Mhm. Mm. ñu ngi lay déwénati di la baalu ak on espère que la fête s'est bien passée et que yow tamit festoyé nga au sein de ta famille. waaw maa ngi baalu ak ñëpp di mhm. baalu ak ñëpp di euh, di ñaan yàlla may ñu fekkee ay yeneen i yeneen i yeneen i at yeneen i doon comme ni ñu koy waxee. waaw ça s'est bien passé dans l'ensemble ouais. d'accord alors euh, ñu gëj la xaw a gis tuuti en ce moment. da teexewu danga da dugg xalwa comme on dit ou bien euh, lan moo tax ñu xaw la gëj a gis. bon lan moo tax ñu xaw ma gëj a gis comme d'habitude. wala pandémie bi la. bokk na si. Mm-hmm. comme ñu bari gën nañ leen gis ndax moom. Mm-hmm. donc euh, man saa ñu ma gëj a gis gaa xam nañ maa ngi si liggéey bi maa xool lan laa war a def maa ngi xool nan laa ko war a defee. maa ngi réglé lu may réglé. Mhm. pour suite bi à chaque fois parce que loolu moo fi nekk et puis bu fekkee gëj nañ ma gis tamit xëy na gëjuñu ma gis ci fépp quoi. Mhm. ñu ma gis ci fépp mais certes am na ci affaire yu bëri yoo xam ne gëj nañ ma ci gis Covid bi bokk na si parce que mënuñu def ay prestations ay concerts ak yooyu yëpp. Mhm. mais ñu ñu war a lijjanti yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi koy lijjanti moom. en ce moment pour euh, faire plaisir à ton public. say soppe euh, ci yan plateforme ngay nekk euh, nooy prester pour euh, essayer de d'être toujours là pour ceux qui t'aiment. bon prester wu ma fenn. Mhm. prester wu ma fenn et man je veux pas forcer en fait. Mhm. te comme situation bi demee na ni dañu xool nan la ñuy defee yeneen genre show ak yooyu sawaruma si ko show virtuel defoo ko. defuma ko de. Mhm. waxuma ko def mais sawaruma si. pourquoi pas. sawaruma si parce que critiqué wu ma ñi def. Mm-hmm. am na ñu may gis ñu koy def mais je me di que instant bi ni mun naa gën a concentré wu ci studio bi ci liggéey bi quoi. Mm-hmm. waxuma suba du ma ko def mais sawaruma si trop. Mm-hmm. waaw parce que ñun ñëpp xam nañ ni jàkkaarloo public bi mu nekk échange entre ñun direct direct. moo moo gënal ñëpp. donc voilà après nag virtuel bi peut-être euh, moom moo moom moo imposé wu moom moo mën a nekk instant bi mais man sawaruma si. waaw. d'accord mm. sunu gan Dip Doundou Guiss mm. Dominique Préra à l'état civil ah. qui êtes-vous une question très basique tey jii bu ma la laajoon loolu loo may tontu sénégalais Dakar waa Ndiago <laughs> artiste rappeur mm -hmm. après jeune boo xamante ni dafa màggee fii Sénégal jàngee fii comme yeneen jeunes yi am ambition boo xamante ni am lu mu apporter Sénégal mm -hmm. yeah. à travers rap oui pourquoi ce choix le rap comme genre musical. bon parce que moo gën a ànd ak peut-être euh, fi ñu jaar ni ñu màggee en tant que ay boy yu Dakar wala ay boy yu màggee fii nii Dakar je sais pas comment je vais le dire mais moom moo gën a moom moo ñu fekk si en fait rap bi. le rap waaw parce que ba ñu nekk xale moom lañ gis mu gën a ànd ak lu ñu bëgg. parce que moom lañ gis suñu grand yi doon ko def. donc mu gën a ànd ak loo xamante ni moom lañ gën a euh, moom lañ gën a mën a def en fait. Mm-hmm. parce que dañuy gis gars yi di wax si ay affaire société ñii di kaas fii ñu gis ni ñuy solo gis gars yi nan la ñuy nan la ñuy jàllalee musique bi message ñuy lancé. Mm-hmm. rythme bi muy àndal mu ànd ak benn genre rythme boo xamante ni. genre nooywul quoi. Mhm. après nag loolu en tant xale loolu moo ñu moo ñu moo ñu bercé ba ñu dem ba bëgg ko. Mhm. ba dem ba ci biir essayé ko gis ne mun nañ ko def ñu def ko. waaw mhm. quel a été tout premier texte. sama fàtte naa ko. tout bi fàtte naa ko. parce que tey jii naa. fàtte naa sax lan laa si doon wax. waaw bëri na. après peut-être tout premier son bi hors norme la bu ma njëkk def. solo quoi waaw. waaw. Mm-hmm. or noonu bu gars yi demee YouTube nañ ko gis. Mm-hmm. d'accord alors euh, tey jii euh, les débuts de Dip Doundou Guiss euh, lan nga ñu ci mën a wax ça déba ça a démarré et puis après qu'est-ce qui s'en est suivi bi nga bëggee formaliser wu comment tu t'es débrouillé. bon yaayu reptile. ñoom mm-hmm. ñoo ma si ñoom ñoom ñoom ñoo fi nekk. instant boobu noonu. après début bi c'était difficile comme ñu bari. c'était difficile parce que. rab nekkul par exemple dem nekk cadre wala nga dem nekk ci benn bureau bokkul après nag bañ si liggéeyee nekk ci forcé mhm. après gars yi mujjee nañ comprendre que ah c'était c'était du sérieux mhm. te am na njëriñ parce que mujjee na ma amal njëriñ mujjee amal njëriñ am na nit yoo xam ne bugguñu ko woon sax mujjee na leen amal njëriñ mhm. après nag mu ngi mu a fexe fexe ba keneen tam bu bëggee dugg. Mhm. mu mën a dugg sans sans pour autant muy am subir pression boobu noonu ñu subir ñun. d'accord voilà. sa entourage naka la apprécier woon sa dugg ci wàllu rap. moom laa doon wax léegi ni mhm. yombul woon. Mhm. du ñëpp a bëggoon. am na ñu bëggoon mooy les amis. ñi la gënoon jege ku ci mel ni papa et maman. non bëgguñu woon moom bëgguñu woon. et malgré mais ils ont fini par comprendre. lan lan moo motiver seen compréhension lan moo. motiver ko motiver mooy li ñu doon gis. Mhm. parce que yemuloon si dem studio kese. Mhm. doon nañ def concert boo di ñëw muy fees ñoom dañ ko doon gis. Mhm. xam après ñuy lancé yenn yenn messages yi comme ay son yu mel ni ay sama jeunesse ay yaakaaruma si kenn. xam di dem un peu partout au Sénégal di génn noonu noonu ba commencé génn Sénégal di dem ay ay yeneen dëkk yu bokkul ak Sénégal Gambie Mauritanie Paris et cetera après. dañuy dem si mbedd bi wala dox fenn ñu naan ay eh, kii kan la papu kii papa papu dib la wala kii yaayu dib la wala genre demee noonu. Mm-hmm. après nga gis benn attention boo xam ne nit yi porté porté nañ ko si li ñu doon def. loolu nag moo moo mujjee indi nii le fait ñuy comprendre que ni. lii nii du loo xam ne foo woon si ñun. waaw mm-hmm. d' accord mm. à l' école t' étais quel koo xamante ni nangu woon jàng kii moom tey la yow. jàng. non naa ba ban niveau. dem naa ba terminal dem université. Mhm. fac droit. Ah mais après waaw après eggaliwu ma ko quoi. ñaata at nga fa def. ñaari at mais def ma fa dara. juste. waaw lu tax nga yàq sa carrière d'avocat bi. yàqu moo ko <laughs> dama dem ba tiraillement am. entre mhm. loolu ak musique bi. Mhm. en même temps tamit condition yi nga xamante ne ñoo nekkoon foofu nekkul lu ma doon motiver. Mhm. pour ma bàyyi leneen li pour topp loolu. Mhm. waaw nga préféré faire avec la musique. waaw d' accord. waaw ko la tuddee dub dip. tuddee sama bopp dip tundu gis. lu tax. dafa ñëw nii nag. dañ doon toog di waxtaan nii rek. après man ma ne dundu gis. y dundu gis y a tout vie gis voir. y dip bi Dominique Prera. non non ah, après loolu après la ko nit yi xalaat. Mhm. mais Doundou gis moo mhm. englobé lépp lu ñuy lu ñuy lu ñuy développé comme musique. Mhm. thème yu ñuy abordé. lépp li nga xamante ni moom moo fi nekk li nga dund li ngay gis qui vivra verra chaque jour moo expliqué ko xam na laa ko mën a expliqué waat tey. mooy par exemple fi ngay jaar li ngay gis li ñu lay lép li nga xam ne mën nga ko partagé ak nit yi. lépp li nga xam ne keneen moo ko gis ñëw wax la lépp li nga xam ne yow yaa ko dund ñëw teg ko ci table bi ainsi de suite insi de suite ainsi de suite dund gis mooy par exemple fii laa nekk tey su ma dundee suba lan laa mën a def. Mhm. lan laa mën a apporter ban rêve laa mën a jaay et cetera. Mhm. d'accord mhm. Dip ku mel man man mënumaa rap say rap. sama rap yëpp rap. non non lu yëpp non. ko man c'est très ma jamono bii nii surtout defatuma rap bu rapide. am na su wolof day xóot. noo def ba am culture boobu ak tamit sa flow noo ko travailler ba am ko. xawma ma sax si mbedd bi rek ak gaay uh-huh. di rabantu di def ay freestyle. Mm-hmm. taxi fii lañ màggee yàgg toog ay nit yoo xam ne peut-être ñooñu mag wala di déglu peut dañuy déglu jàpp. Mm-hmm. après yaa am na recherche maanaam di xalaat toog studio di xalaat di xalaat di xalaat mooy indi yenn textes yi tamit. Mm-hmm. inspiration la nekkul ñu ñoo koy créer. nekkul ñun ñoo koy inspiration amul fenn foo xam ne dañ koy fay jaay. Mhm. wala foo xam ne boo demee da koy tibb après nga ñëwaat. Mhm. non non non mooy ñëwal boppam liggéey la recherche la xalaat la. Mhm. après yooyu yëpp yëpp yëpp mooy mujjee formé lu muy formé ba son bi suy génn quoi. ñi naan ay wax bi dafa xóot. ñi naan ay dafa gaaw non non non ça dépend su waree gaaw rek lay gaaw mais am naa son yoo xam ne c'est dafa yéex ay dundin ay sama jeunesse. ay son yu yéex la même lu bandi di nuróol dafa yéex. ñëpp mën nañ ko déglu ñëpp dinañ xam lan laay wax. voilà parce que cible bi ñëpp la tamit. Mhm. Mhm. c'est pas tous les njaago ñoo dégg olof de yow da nga jege màgg wala. ça dépend si ni ñu la yaree. ça dépend kër gi ngay màggee. Uh-huh. ñun nag dañu am chance su dund ak ñëpp. Mhm. par exemple man yemu moo nit yoo damay toog sama kër kese. am na ay xarit yu bëri yoo xamante ni euh, ñoom feneen lañuy ñu jugee man tam ma jugee feneen. ñoom ñëw di ànd noonu noonu ngay màgg. bu dul dara tam y'a la télé y'a la rajo. Mhm. y'a l'école. Mhm. da ngay dajeek ay façon nit yu nekk donc su fekkee nit bu réceptif nga tamit parce que tamit ànd ak nit ñaari façon la ah. da ngay mhm. nangu nit ki jàng si moom nga nangu moom tam mu jàng si yow. tu vois loolu nag moo def loolu tey si olof beeg yeneen yi ñuy wax yëpp. parce que nit laa boo xamante ni man su ma toogee ak nit mun naa toog façon nit bu nekk. mun naa déglu façon nit bu nekk. après nag xëy na loolu moo def lu muy def nii tey. loo ñeme ñàkk avec beaucoup de succès est-ce que tey jii yow xaaroon nga sa album boobu am <clears throat> succès bi nga xamante ni am na ko. waaw xaaroon naa ko kay. Mhm. xaaroon naa lu ko raw wala nan laa ko mën a wax ay peut-être xaaruma woon tamit lu mu def nii. Mhm. parce que je m'attendais à tout. Mhm. bien vrai que surprise am na mais booy liggéey da nga naan damay def le tout pour le tout. donc soo defee loolu tout lu ñëw tamit da nga da nga mën a encaisser. par exemple li nga ji rek ngay góob comme on dit. boo reyee sa bopp sonn sonn c'est certes ba doo liggéey naan non xaar su ma liggéey pare dinaa gagner temps wala non non da ngay def le tout rek parce que passion baa ngi fi. après suba lii di ñëw tamit day logique. mais surprise moom du si ñàkk. on a été surpris ci ay domaines yu bëri. après nag lan moo lan la surprise boobu di def mooy baromètre bu muy aj benn niveau boo xamante ne après suba. da ngay jàpp ni fii ngay commencé waat pour demaat. lu muy apporté waat nga xam ne fii ngay commencé waat pour demaat ainsi de suite. d'accord yeah. alors euh, psychologiquement lu fait que benn public bi ak euh, benn pression bi entre guillemets nekk sa kaw. non aw ma benn pression. est-ce que non le pression mën na nekk ci nga xamante ni mooy sa public. parce que dañ la bëgg et puis les gens t'aiment euh, t'apprécient est-ce que loolu joué wul sa psychologie et. non loolu mënul joué sama psychologie. est-ce que euh, taxul tam nga voilà maintenant commencer faire. le mais xool ma xool ma <laughs> uh-huh. xool ma. sérieux musul musul a monter. ah mais regarde xool ma rek lan laa la jox. Mm-hmm. mais quand même succès bi bi mu ñëwee yow nan nga ko dundee voilà. nan nga ko moom laa wax parce que c'est c'est nan laa ko mën a waxee genre c'est c'est visible quoi. Ah. boo ma xoolee rek da ngay xam ndax succès dugg na ma wala dugg ma. Mhm. so il suffit nga xool ma rek. Mhm. succès mënu ma dugg mënu ma dugg. tu es tout le temps resté la tête sur les épaules et les pieds sur terre. parce que loolu mooy logique. Mhm. loolu moo xam nañ fan lañ jaar xam nañ xam nañ ñooy kan. loolu moo logique xam nga lan moo ëpp importance. li ngay liggéey. produit bi ngay def. motivation bi ngay def si nit yi et cetera et cetera loolu moo importance. Mhm. mais taxaw ñëw sol costume wala ñëw ñoddi benn affaire wala làkk ay anglais wala xaw ma lan laa ko mën expliquer. Mhm. loolu intéressé wu ñu. lu ñu intéressé mooy def loo xamante ni suñu bu ñu toogee nañ ah ñun de def nañ lii mais bu ma ñëwee ñëw nga invité ma ma nekk fii di def ay affaires yoo xamante ni man sax gëwuma ko. lan la may apporter <laughs> suba suma demee dans quarante ans wala vingt ans dama naan woy man maa doon takk maa doon takk lii wala maa doon lii lii wala maa doon waxee nii. Mhm. amul amul importance. Dip Doundou Guiss il se réclame le président du rap sénégalais. bon pas damay réclamer sama bopp ay président rap sénégalais loolu ay rappel la woon rek. Mhm. maanaam daa moon ñu ko demoon ba bëgg ko fàtte ma rappelé leen ko. mais bokk mën nga mën nañu bokk nga ci les ténors. non man maa nekk. ku fi ne keneen. non mais dañu waxante dëgg. dañuy <laughs> waxante dëgg du pour tàgg sam bopp. Mhm. mais du ma fi nekk tamit di bàyyi ay ay ay ay kaañ naan ñoom ñoo fi ne te neewuñu fi du ma ko nangu <laughs> parce que <laughs> damaa liggéey lu may liggéey ba pare. d'accord dañu waxante dëgg. après mhm. nag c'est pas que loolu moom fi bàyyi wala loolu moo am importance si man. Mhm. dama la koy rappelé waat li am importance si man mooy ma dem studio liggéey toog ni ah waaye franchement gars surpassé naa sam bopp. wala développé naa benn affaire wala man sama bopp su may déglu sama bopp may sentir waaw maa ngi loo xamante ni lii liggéey mu ngi si ginnaaw mhm. wala recherche mu si ginnaaw wala musique bi jugee na fii ba demaat fii projet bi ak projet bi ute nañ ci nii ci nii évolution amee na fii ak fii loolu rek ma amal importance mhm. loolu rek mais ay maa fi mën ak maa fi lii ak yooyu amulul importance yi man mhm. mm. pourquoi les rapports ont souvent tendance à voilà daa naan ne maa fi kii waaw parce que rap noonu nag rap dafa am ego bu nekk ci biir rab dafa am ego. bëggul ku ko raw bëggul par exemple euh, na laa ko mën a waxee kuñ naan ay moo ko mën wala genre demee noonu parce que rap moo mel noonu parce que dafa am ay battle. ay freestyle genre dañu teel a éduquer si si si kii boobu noonu. jàkkaarloog sa morom naan ko maa la mën ay xamoo dara affaire yooyu. loolu dañ loolu loolu rap moo am loolu noonu ci boppam xam nga mbalax mbalax maan amul concours mbalax ngay taxaw sa moroom taxaw nga naan ko demee na nii demee na ne la mhm. mais rap am na ay pop feeling ay façon concours bu nekk am na rab boo xam concours rap yoo xam ne dangay ngay ñëw ñu mettre la face ak sa moroom nga battal ak moom. Mhm. xëy na nag loolu yëpp culture yooyu nag mooy màggloo artistes yi ba suñuy màgg tamit dañuy demee noonu. Mhm. te dañ ko daan gis tamit avant ñuy commencé. walla yàgg na fi. ci suñu mag yi ñoom Rapadio ñeneen avant ñun ñuy commencé yàgg na am loolu ay Daddy Bibson gars yàgg nañu waxante affaire quoi. voilà. Euh, ñu ngi naan mbalax y a beaucoup de médiocrité est-ce le même cas avec le rap tey jii bu fekkonte ne ni yow da ngay jauger ak tamit di joxe sa xalaat ci tolluwaayu rap sénégalais ce serait quoi. franchement nag man du ma nit boo taamu taxaw naan ay affaire bi daa médiocrité. Mhm. wala non non man du ma genre nit boobu. Mhm. fépp foo dem am na médiocrité. Mhm. fépp foo dem si àdduna. am na léegi nag fépp foo dem tamit am na ay nit yoo xamante ne. ñu ngi ñu ngi góorgóorlu quoi. Mhm. ñu ngi góorgóorlu ñu ngi liggéey ñu ngi imposé wu. donc wax dëgg yàlla je vais nekk fii di juger naan fii am na médiocrité fee amu ko. fépp ak am mais bu amoon luñ ci war a defaraat. luñ ci war a defaraat. Mhm. yow pour yow lan moo si yàqu. Mhm. d' abord. sa avis d' expert laa soxla. je expert nag. du ma expert. je vais dire juste que je vais dire je vais dire c' est très normal te loolu de mës a am. Mhm. dina am ñoo xamante ne ñooy gën a am niveau que ñeneen. Mhm. dina am ñoo xamante ne li ñuy fekkee ak ñeneen lu ñu fekkee du bokk di nga am ñoo xam ne li ñuy yëg ak ñeneen lu ñuy yëg du bokk. Mhm. ku nekk ak yow ni ngay ni ngay defee sa musique wala ni ngay defee sa art pour mu dem. art moo libre donc nañ bàyyi ku nekk mu libre ku nekk di woy ay AOI sax yow tu libre am nga droit bi. liberté am na ñu mu neex booy am na booy fi ñëw booy liki liki liki lam faaya kooku instant bi nii ñëpp a ngi wax si moom ñëpp a ngi koy déglu et cetera am na ñu mu reetaan looyu tout mm-hmm. je vais dire que c'est médiocre mm-hmm. que loolu laa war a wax mm-hmm. non am na xam ne neex na leen te peut-être am na ñoo mu ngi leen di reetaanloo mu ngi leen di fàttaloo ay affaire et cetera am na ñu si tooñante donc il a parvenu am lu mu def si nit donc je vais pas dire que c'est médiocre wala la tu donc mun mënuma mënuma juger médiocrité kenn médiocrité kenn mënuma ko juger. mais ça va. Hmm. dans l' ensemble ça va. non dans l' ensemble non gars yi booy ñu ngi liggéey. Mhm. ñu ngi liggéey mais dañ leen war a bàyyi juste ñu libre quoi. parce que tu penses que dafa am lu leen tënk. mooy comme yii nii yëpp. Mm-hmm. ay médiocrité yi kii naan ay fii dafa dafa médiocre kii naan ay non c'est pas engagé kii naan ay dañ ci rax mbalak kii mm-hmm. naan ay lii ak lii non defal li ngay def nga bàyyi sa morom mu def lu muy def c'est simple waaw d'accord mm. amis auditeurs et les internautes de la chaîne Rewmi TV on rappelle que nous sommes avec Dip Doundou Guiss mm-hmm. alors euh, qu'en est-il de ta relation avec euh, euh, le label Reptile Music parce que on avait entendu dire qu'il y avait une rupture c'est vrai non non non mosul am non ñu continuer à travailler. oui. Mhm. Mhm. d'accord mhm. et ça marche tu es satisfait tu es satisfait de la collaboration. bien sûr depuis le début. ouais. d'accord alors euh, tey jii bu amoon euh, peut-être bilan à mi mi parcours booy def sa digganteeg label boobu euh, tu en es satisfait ce que on peut s'attendre à ce qu'un tu changes de maison de production. non en fait wax naa ko fépp. nekkuma damaa bokk. da nga bokk voilà. Mhm. exactement. d'accord voilà. alors euh, yan rapport ngay entretenir ak ñi nga xamante ni ñooy travailler avec euh, même maison de production bi ku ci mel ni. Samba Samba sama rakk la. Mhm. comme ñoo bokk ndey ak baay ak ñeneen ñeneen ñëpp. waaw ñun ñëpp day c'est comme si ñoo bokk deret. vous vous vous êtes connu au passé wala. Euh, oui Samba on s'est euh, connu avant ah, avant avant rap bi avant sax on s'est connu avant loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord alors euh, ñu gis ni tam ñu bëri dañ lay def c'est normal di def ay critiques ci yo pourquoi souvent sa maison de production boobu du du la défendre. mais est naturellement. wala ñu fa bokk. ñu ngi may ñu défendre ci ban domaine ak ak est-ce que dañ ma war a défendre. <laughs> waa génn wane une certaine solidarité. pourquoi parce que je suis dama dama dama dama je suis atteint wala dara. Ah ah. yow tu penses que mën nga. booy défendre da ngay défendre koo xam ne il est vulnérable wala il est atteint wala dañ ko dañ ko laal foo xamante ni dal na ko. ba mu yëg ko. mais yow bëri ñuy wax yow tey su ma la fekkee la def la dara. mais fan super. <laughs> ah mais dañ dañ may wax par exemple coow bi feeñ na fii wala fële. Mhm. ñu ngi coow may def li may def di def samay concert di def lu may def. Mhm. di jaay li may jaay fan la may atteindre. très bien waaw. alors loolu atteindre la. d'accord mmh. on passe à autre chose. yow naka nga dundee euh, li nga xamante ni mooy période pandémique bi beaucoup d'artistes se sont plaints le chiffre d'affaires n'était plus comme avant est-ce que yow c'est ton cas. oui c'est mon cas ak cas ñeneen ñëpp métti na. Mhm. mais ñu ngi jéem a xool yeneen yoon yi rek ñu ngi jéem a xool yeneen yoon yi. Mm-hmm. yeneen source de revenu yi parce que am na musique du live kese du concert kese. Mm-hmm. te concert kese lañ ñu tere ah. mm-hmm. donc euh, mun nañ essayer leneen mun nañ génne beneen beneen porte ak yooyu te ñu ngi si liggéey. waaw d'accord alors euh, ñu gis ni tam bokkoon nga ci ñi nga xamante ni demoon nañ pale ci période boobu. l'entretien avec le président s'est passé comment et puis lan ban jàngat nga ci am yow. ah ça s'est bien passé et puis euh, ça fut ça fut un plaisir le fait que mu wooñu su la su la genre kilifa yooyu wooyee c'est parce que am nga looy représenté. Mm-hmm. mu wax ñu si si si si si lu mu nekk si problème yu mu yu mu yu mu nekk di régler noonu. Mm-hmm. suñu xalaat ñun tam ñoo ko suñu xalaat. Mm-hmm. mais ñun commencé woon nañ avant moom mu ñuy woo. defoon nañ ay son de de yow loo ko wax. si. <laughs> du toi du man ak Macky li mu ko wax wax naa ko pare li mu wax na mu ko pare li mu wax ñeneen ñi li mu ñu wax ñun ñëpp wax nañu ko ba pare voilà franchement bëgguma sax nekkaat di dugaat si domaine yooyu noonu. Mhm. en résumé daal affaire Covid bi la. yem na si Covid bi dépassé wul Covid bi exclusivement à part après gars yi wax nañ si de fonds yooyu noonu waaw. Mhm. wax nañ si waaw. d'accord mm. Dip euh, Grand Yoff très engagé ñu gis ni tam def ngay acte de bienfaisance. Mhm. ci période boobu nga xamante ni. Mm. peut-être population bi fa dëkk yi. Mm. elles l'ont mal vécu. après bon sentiment nga am et puis lan. population yëpp la. lan lan lan moo la motiver parce que mënoon nga ko bañ a def. population yëpp la. Mhm. ñoo ko yëg la moom mu motiver donner l'exemple genre. montrer l'exemple su mu ko mënee quoi après leen dinaa ko confirmer mooy gars yi dañu naan woy dafa dem pale après si la def kii bi <clears throat> palais jox ñu ma dërëm mosuma jël dërëm mu palais te du ma a jël dërëm mu palais. Mhm. yaa ngi dégg maintenant man ceeb bu ma joxe joxe du si ceebu état bi. man mhm. ceeb parfumé laa joxe. parfumé dama koy dama koy confirmer ñi fa ñëwoon ceeb prix parfumé lañ leen jox. Mhm. yaa ngi dégg voilà après ngeen jàllale lool lu tax ngay insister ci parfumé bi. parce que il faut ma insister si parce que damay dégg ay nit ñu naan non Dip dem na pale ñëw na joxe non non non Dip demul pale ñëw joxe. Mhm. dem na Palais certes mais lu mu joxe si poosam la ko jële mhm. voilà. d' accord waaw. alors Dip ban spectacle nga def mu gën la marqué que seen boo xamante ni doo ko fàtte que de toute ta carrière ça là ça va être dans ta tête. ah scène ma def bëri nañ. Mhm. yi ma si marqué tam bëri na donc est-ce que mun naa ne bii la parce que du ma toog di naan bii moom a gën a marqué wala di toog di fàttali ko chaque jour maa ngi jéem a xool suba quoi. mais biñ mujjee def si ses bi marqué na ma parce que nu ñu doon joué surtout mm, orchestre orchestre bi nu ñu doon joué invité yi gars yi. amoon na ambiance boo xamante ne amoon na benn évolution boo xamante par rapport ak live bi bu ma neex trop. te bëgg naa ci gën a continuer quoi waaw. waaw boobu moom ça t'a marqué. waaw alors est-ce que bokk nga ci artistes nga xamante ni leur art leur fait leur fait vivre. c'est c'est mon art qui fait vivre. Uh-huh. waaw alhamdulilah sant yàlla bu baax. Uh-huh. Mm. dëggantaan on peut mm. dire que Dip est riche alors. non lu tax la mooy riche d'abord. riche friqué. non c'est pas être riche. Mhm. am na ñoo xam ne dañoo friqué. ci cadre boobu laa ko waxee friqué. waaw moom laa wax ma ne loolu c'est pas être riche. Mhm. ba loolu du nekk. toi c'est quoi am jàmm am amal njëriñ nit yi njëriñ nekkul ci ay xaalis kese. ne penses-tu pas que c'est l'argent qui fait tourner le monde quand même. oui non non non c'est pas que l'argent en fait il faut pas ñu dem ba gëm. mais il faut que ñu dem ba gëm loolu uh-huh. dem ba gëm ko. Mhm. ñu ngi suturaal suñu bopp yàlla mu ngi suturaal mais richesse dëgg dëgg dëgg dëgg mooy santé nit yi nga am ak ñoom rapport yu rafet amal leen njëriñ sa communauté nga amal leen njëriñ. loolu mooy richesse mooy yow sa dund am na njëriñ sa dund bu amee njëriñ pour man loolu mooy richesse. très bien mais du ay affaire u ay xaalis am na ñu am ay milliards te amuluñu kenn njëriñ. Hmm. loolu ban sens la am. d'accord benn sens. coow li bëri woon na torop diw franc-maçon la nangam ak sangam naka nga def yow ba coow loolu fay. parce que gis nañ ni off waxatuñ ci. non yow ya ngi ni di si wax. waaw man maa ngi parce que dama réchauffé affaire bi. mais le grand public. moom voilà carrément je ne sais pas je ne sais pas lu dul dëgg rek du yàgg. Mm-hmm. lu dul dëgg du yàgg. Mm-hmm. loolu kese laa wax. voilà lu dul dëgg de Dip. waaw alors les plus grands projets de Dip à la musique c'est quoi tu tu en as oui mais après après après lañ si gën a mën a lañ siy gën a mën a wax. Mhm. lañ si gën a mën a développer la ko nit yi di mën a gis. Mhm. waaw mais période bii moom mënoo gu ñu sori si yenn projet yi. mais yow am nga projet social boo xamante ni ça te tient bi nga juddoo ba wala bi nga ràññee ba léegi. bëgg man de wax dëgg yàlla. Mhm. ku am projet social. bëgg ko def te ma war si mën a ànd dinaa si ànd. su ma amee projet boo xamante ni tam social la bu ma war a def dinaa ko def donc am naa loolu sama xol ba pare. Mhm. léegi nag yàlla bu ma mayee doole bi dinaa ko gën def te commencé naa ko def depuis. Mhm. waaw. ça tourne autour de quoi. ay village SOS village pilote affaire xale yi dem si hôpitaux yi. Mhm. comme buñ mujjee def yàggul dara ak yeneen ak yeneen am na yoo xamante ne tamit du bu du bu nit di gis. te boobu du ma si mën a sori tamit. Mhm. mais jàppal ne loolu mu ngi sama xol man. yaa ngi koy concocté. voilà yaa ngi koy togg voilà. d' accord exactement. est que Dip am na projet tamit def un featuring de ouf boo xamante ni boobu ça te tient à cœur. bien sûr comme ñëpp. comme artiste yëpp bëri na sa na ça dépend mais bëri na bëgg nañ def featuring ak ay artistes yu mag pas benn kese yu bëri. Mhm. Mhm. mais boo xamante ton rêve. avec peut-être un artiste ah, international en fait man man man j'ai l'impression que question yi posé woon nañ ma ko quoi. d'accord moo du ma mën di répété wu temps au set. Mhm. voilà. Euh, kon daal euh, les featurings son peut-être en gestation. oui. d'accord waaw. tey jii bu fekkonte ne ni am nga un petit frère wala mbokk boo. xamante ne dafa bëgg a sóobu ci ci rap. dama mhm. euh, su ma ko mënee accompagner ma accompagner ko. mais du man maa sax conseiller mu naan pour mu lu tax. parce que li si nekk la. Mm-hmm. waaw. lan moo ci nekk. bëri na. Mm-hmm. li ci nekk dafa bëri. léegi yow mu ko conseillé nit de. da koy décourager wala. du ma ko décourager de. Mm-hmm. su ma gisee koo xam ne bëgg na ko dinaa ko accompagner. waaw mais du ma conseillé du ma fekk nit mu toog ma ne ko kaay nga rab. waaw. Hmm. Dip c'était un grand plaisir. merci de l'interview tey jii lan ngay tàggoo ñi nga xamante ñooy say soppe doon la teewlu depuis 16 heures sur la radio du bonheur ak tamit euh, la chaîne Rewmi TV. tout d'abord maa lay remercier yow. di leen remercier ñoom di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ñu moytu takk masque. moytu joxe loxo bu bëri bi. Mhm. mooy parce que mu ngi fi ba tey. Mhm. waaw loolu mooy loolu mooy pour man loolu moo importance sax jamono. tout simplement alors c'est sur ces conseils de Dip Doundou Guiss lañ leen di tàggu. amis mhm. auditeurs dañuy dem ñëwaat du ko yàq toog fi ak beneen star waxtaan ak moom merci.